waren ze een keer

jotaayu tey bii waaw murit mooy daanaka fi daje bu jiitu jotaay yi waaw ngeen ñi teewoo ak dal fal. rajo bi daa mel ni lu mel ni li bis nga toggee tey bii ni mel rek waaw rajo bi rajo bi te lépp dara warulu ko woon ni lu ni ko bi bëgge dem fi ni def dajale nit dajale gone yi moom la sëriñ bi def dajale gone yi yar leen jàngal leen ñëw na yar bi boo xam ne fu nu daje nii rek la sëñ bi bëggul mu mel ni at yëpp jiitu ñëpp hmm? doon nañu bëgg lu mel nii waaye dal bu mel nii na mel ni xawoon naa jafe xawoon naa tum rek kon bu ñu demee ba barkeb sëñ bi léegi sëriñ bi feeñ ci lu mel nii mu bëggee woon ko nii nee na kon mi ngi ciy sant yàlla ak Serigne Touba ñu bëgg loolu ñëpp ñu ànd ci sant yàlla ak Serigne Touba nii nii rek la ko bëggee won rajo bi rajo bi kon bu ko jiitu bëggoon na. waaw rajo bi rajo ko jiitu jafe won na waaye tey jii rek nii rek la ko yàlla dogal nii ma ko gisee te waxee ko ne nag ko def ay xam bu ko fi jógee parce que yéen bañ laa rëcc da nga jëm. te muy jigéen nga indiwaale ko def ko sa njiit lay ñi gën a amee danaa ci loo xam ne yéen ñi ma ko bokkaloon xam ngeen ko mooy bokk na ci siyaar yu mujj yi ñu siyaare sëriñ bi fii ci kaskaare bi ñuy wax kaskaare bi sas bu yàpp xam ngeen ni am na jamono xam ne fi lañ fekk ku baax waaj guddi la ma waxoon na nga teel a xëy si nga ñëw na nga ànd ak li ma jublu mooy balaa gone yi ñëw ngeen wax nan lan war a tërale ziar daal moom mooy war a demee ci suba gi teel bi ñu xëy si ma wax ni fii ngeen na fekk yëg naa ne jóg yomb ma ma bëggoon na fee def ziar wala ndax mënees ne kon de xanaa dañuy bu ñuy duggee ñu mu ne kon de bu ma lay am dana baax ndax jóg yomb ma fii ngeen na fekk. sama borom dogal bañ duggee xat-xat loo ba ak puusante ba ak xëccoo ba mujj na sañ bee yëkkati ay loo xam ne na ñëpp génn loolu ku bokkoon ci siyaar nga na ñëpp génn ba mujj mu dand ba jàpp ay tànkam teg ko ci def leen yitte ci mbooloo mi mu sawaane ko nit mu ne ko ñi ñi ma gis ba teg leen bët buñ génnee ñoom ñi ma tegul bët ñooyam dinaa jaxasoo leen ci ñi ma tegoon bët loolu la seen jox waaye daal di wax ca saasa bi xanaa ñun waa kër gi Moustapha ne quoi ah, xam naa bari nañ ci nag waaye ñi waral xëccoo bi xam nga ak defar ñi waral xëccoo bi ak puusante dañoo am ay xarit ak i wëllëre yoo xam ne dañoo ñëw ci bis bi te xëccoo wala gis waaye waa daara ñu ko waa kër waa daara ji sañu noo mel nii sañu noo def nii war na ko ñëpp bàyyi waale xel sañu noo mel nii sañu noo def nii te booba noonu kese la noonu kese la soo rewee nag kon su koy bëgg su koy bëgg su koy bëgg ba taw féex am na nga ko bëggee woon moo feeñ ci ginnaaw sëriñ bi ak yokk amat ma amat ma amat ma amaat la ba kenn mënat ci ko kon taw féex bu nekk ndam lu nekk daa am ko muy xaar bu dikkee rek yàlla defal ko lool kon sëñ bi dëppoon naa moom gis na ko wax na ko nañ ko def wóor jàpp ko bañ a tàggoo moom su ñuy dem ak bu ñuy ak bu ñuy dellu fa mën a daje moom bi waxoon na ni li li taw féex ji mooy daje ci pas-pas liggéey yi ñu dëgmal te fas ko ñu lay def kon mel ni nañ ko defee woon daaw fas nañ ko yéenee defawaat noonu rek ñu koy séenu waaye su boobaa nun ci suñu bopp ñoo war a xam ne ku bàyyi xel ni sëñ bi la joxum war a joxum ndox seetal si sa bopp ba xam yaay kat koom war a jox aw ñam seetaatal sa bopp ba xam ko war a doon su fekkente ne xorom la wala kafe seetaatal sa bopp noo war a dem liggéey yi tool yi noo waa wut lu ñuy añe noo waa wut lu ñuy reere noo war a wut lu ñuy bàttali ko ba kañ la cee gàmm lay bëgg bëggam mi ngi ko def ci di suñu bëgg mi ngi ko def ca lam li sax su ko defee nag boobaam ku fi jógee na nga am pabutéef yi bis bu joxee ndigal ci ñu war caa dem fekk ñëpp jekk ku ne am jumtuwaay yooyu liggéey sëñ bi digaluñu luñ ñu jàngalu woon ba da nga naan naa fexe ba li ma sëñ bi jàngal ma mokkal ko bala maa dem ca mbooloo ma tari sëñ bi bàcc gerte lañ sëñ bi jàngal moom mu digal te sëñ bi ne ko jàngaloon ban mokkal la tari rek a ci des jëri gerte moo nu ko jàngaloon rajo roj gerte moo na ko jàngaloon dajale gerte moo nu ko jàngaloon kon sëñ bi waxuñu lu dul lan la ko doon te am ku nu ko jàngaloon te jaaroon na ca yoon ba moom la wax ne nañ ko tari bu gisaat loolu rek la ba bu bàcckat bu nekk xam nga ni bu jëkk ci daara liñ daan def mooy ab ëllëg lañ daan yor booba jamono toll foofa xaaral ak àdduna foofa la toll waaye léegi rabu la ñuy bàcce kon képp kuy jógee ci barab na nga fexe ba nàbb ab bàcc kuy jógee ci barab na nga fexe ba yor fu sët muy ndam lañ daan jëlee nga fexe ba bay ñëw la la yoon ndam loo xam ne bu boo ko jëlee jëpp fourchette bi ba mu set la ca def jëpp ndax ak suuf ndab moo ko mën a tibb waaye fourchette mënu koo tibb nga jeer ko ba mu set sotti ko foo xam ne buñ ko buñ koy duy saabee su dikkee dana ko sol te noonu tax tax buy ñëw andil la rab buy ñëw andil ab bàccukaay buy ñëw andil ndam la beesee bañ cee yam moo gën jëw yi nañ fexe ba ñu dëkk Touba yi dëkk Dakar yi dëkk Njaareem yi dëkk Kees yi dëkk yi dëkk Tamba fu a bul yemale wàccukaay yi ci ñi yow miy dem bul ko yemale itam jurukaay yi ay jumtuwaay lañ yoo xam ne daara lañu te nit yi daara lañu te ku ne yaa koy fàggul sa bopp te mën nañ leen a dimbali jumtuwaay ñu andi rajo yu bari andi jërukaay yu bari andi fourchette yu bari suñ ko noppee daara du mën a dem jox ko jëwriñ ji dem bu déwee noonu andi yu ko ëpp wasalaamaaleykum ngelaw ba ba ñu bañ faa yàq ci barke seen bi nee ñaan nee na bu ñaanee ba noppi jullit bu ñaanee ba noppi da koy tëje salaatu ala nabi salaatu gii mu koy tëje nag nee na lépp ngi ci biir wasalliyan wasalliman ala nabi wa aqdi bihi haajatu kullu muslim Sëriñ Tuuba toog leen ba mu jàll toog leen ba jàll